julli nañu ki nga xam ne mooy Ismail Haniye ak ki nga xam ne moom moo àndoon ak moom nekkoon garde corps am jiite nag moo doon mooy euh, le guide suprême al murshidul ala muy sayid euh, ayatullah al uzma ali xamanaay euh, ci teewal nji maanaam ñu bare bare bare bari ci ay mbooloo yoo xamante ne ni dañoo jóg fu nekk ci Iran pour participer ci maanaam loolu moom mooy julle bi gannaaw loolu aussi yóbbu nañ ko ci maydaanul euh, sawra muy euh, euh, maanaam place bi nga xam ne mooy de la révolution peuple bi ñeneen ñëpp fekk ko foofu pour gunge ko incha allah pour dem ci dawxa ñoom it ñu julle ko bu ko defee ñu man koo jenc foofu ci dawxa li ñu mën a wax daal ci li nga xamante ne ni mooy li am aussi ci beneen domaine mooy ci xizbullah aussi julli na ki nga xamante ne ni mooy shahid euh, Fuad Chakr euh, muy Abu Muhsin nga xam ne euh, conseiller la woon ci Hassan Nasrallah te bërki démb moom it Israël boom ko donc moom it Hassan Nasrallah def na fa discours bu rëy boo xamante ne ni donc bu rëy pour wax ne dinañu fayu te na Israël pare dinañu dina se nañu ree tuuti te dinañu jooy lu bare bare bare bare bare bare ndax ni ñu leen nar a def euh, ci Iran nag fekk comme ni nga ko xamee guide bi moom muy almurshidul ala moom nee na euh, Iran day fayu waaw fayu la boo xamante ne dafa war ci ñoom parce que seeni ay gan lañu la ñu rey te loolu yabeel la te xam nga loolu ci wàllu aada diine lislaam ak ci aada arab fa nekk nga violé surtout rey ganu jàmbur wala nga gaañ ko wala leneen dafay nekk xabila bi yëpp day jóg taxaw donc loolu la la wax ba sax ci xom nga xam ne fa la mooy dëkku sëriñ yi euh, taxawal nañu drapo bi nga xam ne foo ko gis rek ci maanaam ci yoonu chia rek xamal ne ñi ngi pare pour xeex guerre mooy bi dañ ci bind yaa euh, ki rayaatal Hussein maanaam ñi nga xam ne ñoo war a jóg pour euh, far rongoñi imaam Hussein alayhi salaam ci Karbala donc drapo bu xonq lay doon ñu def ko ci doom bi nga xam ne maanaam xubba bi gën a mag ci seeni jumaa yi def nañ ko ci pour wane ne dañuy fayu donc loolu ci Iran la président bi nee na dinañu jox leçon boo xam ne Israël du ko dootu ko fàtte waaw donc nag alerte la donc bu mag a mag ci Israël kii di Benjamin Netanyahu nee na moom ci jëm boppam Israël na préparé dund ay bis ak ay guddi ay waxtu yu metti yoo xamante ne ni moom Israël dina ko dund loolu la Benjamin Netanyahu wax donc ci ci ci bu ñu dee xool tey euh, lii nga xamante ne ni moom la ñuy xaarandi te aussi fale ci euh, Yemen wax nañ ko aussi muy Abdul Malik Al tey wax na ko mooy ne dañuy fayu donc fayu bu dafa mel ni. dañuy euh, fayandoo waaw waaw ba ñuy fayandoo comme benn front la jabha la sax lañ ko tudde léegi tuddawuñ ko mixwar muy axe mais jabha muy front uni la nga xamante ne ñoo ko bokk donc dañuy fayandoo parce que ñoo bokk même objectif te kenn ku ci nekk am nga sa heure maanaam loo war a fayu contre Israël donc Israël bu yeboo na préparé wu ci fan yi ci heure yi may wax ni kenn xamagul euh, parce que Hassan Nasrallah nee na effet de surprise la ñuy ñëwee xam nga yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi bu doon xeex day day njëkk a jiital information bu ko defee ruub li ñu tuddee njaq njàqare lay dugal ci xolu nit ñi wa qazafa fi qulubihim ruuba gis nga ko loolu mooy njëkk première arme yonent bi moo tax gis nga bu ngeen ko dee xool sax ci Iran même ci wàllu xeex buy xeex dafay yëgle waaw day yëgle pour wax ne bisu tel dinaa ñëw parce que yonent bi noonu la doon def loolu mooy jikko lislaam waaw gis ngeen ko ci ba ci guerre Iran Irak 1980 ba ci 1988 Saddam Hussein da doon bombardé nu ko neexee mais Iran saa yi buggee bombardé Irak dina joxe 72 heures d'ultimatum muy alerte pour wax ne ne Euh, euh, dinaa bombarder bërëb sàngam na fa civil yu jóge pour bañ a def ay dégâts yu ëpp ci civil bi donc yooyu jikko lislaam la moo tax ñi nga xam ne dañuy wax naan lu tax jóguñu daanu xeex léegi nekkatu comme xeexu nga giseeg nit ki mu mu yokk la rek nga xóori ko waaye xeex léegi dafa sa sa noon dafay nekk à des milliers de kilomètres nga nekk fii mu laaj xel ak xam-xam ak xalaat nga mën euh, ko mën a faagaagal wala jëfan jëflante ak moom donc loolu moo tax sax même boo gisee ci Hizbullah fi mu nekk nii am na ñu bari ñoo xam ne ci mobilisation ci monde chia monde islamique de manière générale pour ñëw ne dañuy jàppale si Hizbullah mais Hizbullah da ne guerre bi fi mu nekk nii soxlawuñu am ay nit parce que fi nekk nii lépp loo xamante ne ni matériel la ak ay nit yoo xam ne yu qualifié yu xam yu yu qualifié yu xam maanaam xeex yoo xamante ne ni Euh, euh, euh, ci wàllu technique technologie bu bees bi yooyu yëpp am nañ ko fi mu nekk nii moo tax soxlawuñu am renfort ci nit ñoo xam ne amuñu qualification ci nouveau armement yi nga xam ne nouveau nouvelle technologie d' armement yi nga xam ne dañ koy utiliser pour xeex surtout contre ak ak Israël te xam ngeen Hezbollah ci jëmu boppam ci jamono yi ak njanaaw yooyu mu tuddee hudhud muy avion yooyu nga xam ne yónnee na ko te yónnee na ci ñett. dem nañu ba nga xam ne lépp loo xam ne point stratégique la muy aéroport muy port muy piste mooy suñuy cache d'armes yi si ñuy def seen nucléaire yi seen armement nucléaire yi seen centrale nucléaire dimona point yu sensible yi ak kii wa usine bi ak mboolem seen gaz yi fi ñu koy def ak yooyu yëpp seen centre de de commandement yi militaire civil yooyu yëpp Hezbollah filmé na ko jël photo bi génn ko te Israël yëgul donc loolu leen tiital ci la ci la ci la ci la bokk donc waxantuma laak lu toll ni Hezbollah moomun loolu donc lu toll ni Iran dina def loo xamante ni lu ëpp loolu te loolu dina am li ñuy jaaxle kay mooy li nga xam ne Iran toog na ko xool ba lii mën a am nga xamante ne charafam muy honneuram hayba muy prestige am am na muy sécurité am siyaada muy souveraineté am waaye aussi xurma muy sacralité naka la def ba nga xamante ne ni Israël aw na foofu waaye xam nañ ne li ko gën a yombal moom mooy ñi nga xam ne dañuy nekk ay naafiq nekk ci biir souvent ay sëriñ lañuy doon wala leneen parce que yonent bi yàlla mu ngi ko koy wax wa min al arabi wa min al arabi wa min al arabi munafiqun wa min ahli al madinati maradu ala nifaaqi laa taalamuhum nahnu naalamuhum am na ci arab yi ak ñi nga xam ne waa Médine dañ laa gi alquran na ko indi daf ci am ay naafiq yoo xam ne xamuloo leen yow yonent bi mais man maa leen xam donc gis nga loolu jeexal na wax toujours fu cause am am na ñoo xam ne ñooy nekk cinquième colonne ñooy ànd ak noon yi ci biti pour di nooju li nga xamante ne ni moom mooy ñi nga xam ne ñoo nekk ci biir donc daal ci gàttal ci salaaj bu ñu mënee wax fi mu nekk nii ñi ngi négandiku euh, li nga xam ne mooy réplique radd muy fayu bi nga xamante ne war na jógee ci Iran ak ci Hezbollah waaye aussi ci Yémen ak Irak aussi bu leen fàtte ne démb ci même moment bi rey nañu foofu ci Babel euh, euh, euh, ay ñoo xam ne ñoom it ay kilifa lañu ci ci mexwarul muqaawama wala jabhatul muqaawama du ñu jeexal nag lu dul wax la ne ci wàllu Palestine am na ñett nit yoo xamante ne dañu préparé pour ñu mën a euh, euh, kii euh, mën a remplacer ki nga xam ne mooy Ismaïl Haniya ki ci jiitu mooy Khalid Mashal Khalid Mashal mas na jiitu nekk jiitu Hamas 1996 ba min 2017 moom sax ki ko ci wuutu moom mooy Ismaïl Haniya donc kooku mën na ñëwaat nekkaat ko ñu ngi tudd turu Yahya Sinwar mais Yahya Sinwar kooku mënul ñëw parce que gis ngeen fi mu nekk moom mooy jiite combat yi yi nga xam ne moo am ci Gaza ak Zahar Jabbarin kooku aussi ah, moo gën a nekk xale nag mais kooku amul expérience bu ñii am waaw donc te lii dafa laaj expérience donc daal ki nga xam ne tey ci boo ko dee jàngat si le plan géopolitique géostratégique situation bi ni mu demee ak ni koo xam ne moo koy mën a taxawu mooy ne ci Khalid Mash'al man loolu laa gis te boo sàgganul moom la ñuy koy tànn pour mu wutu ki nga xam ne mooy euh, euh, Ismaël Haniyeh donc incha allah ñu ngi topp maanaam li nga xamante ne ni moom mooy euh, évolution bi ci kàttanu borom fuñ ci toll rek am ci yu bees rek dinañ leen ko dikkee incha allah jërëjëf.